wa sallallahu wa sallama ala habibina wa qurrati ayunina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi alghurri almayamin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk yi baaxoo di euh, topp seen télévision QTV waaye baaxoo di topp seen programme bi ñu tuddee minbaru nuur euh, ki nga xam ne moo ci ànd ak di sunu way jur professeur docteur Omar Dia euh, mu len di ñëwal bés bu nekk ci week bu nekk ci waxtu wi tay nak fas nañu yéene ànd mom euh ci programme bi nga xam ne lañuy tuddé ñuy min baru noor mu waxtaan ak yeen mu nekk programme bo xam so koy déglu wala nga koy euh da ngay yëg ne programme bi yëpp leer la programme bi yëpp yonent bi la programme bi yëpp yàlla la nga xam ne ki nga xam ne moo koy def muy jóge ci moom bépp kàddu goo déglu ci moom rek dangay ngay yàlla da ngay yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wax ji na mu sellee ak wax ji na mu amee amee eh, leeree léegi nag tey ñu fas yéene ànd ceeg yéen euh, ci programme bi nga xam ne defoon na ko semaine bale passé ñu ngi ko defoon ci euh, Cheikh Omar Foutiyu Cheikh Omar al Foutiyu euh, nit yàlla kooku nga xam ne képp kuy jullit su ma yeboone xam nga kan mooy Cheikh Omar Foutiyu wala dégg nga ko euh, Cheikh Omar fuuti moomu ci la góor gi fas yéene def waxtaan tey commencé woon na ko ci programme bale passé waxoon na nañu Euh, euh, jaar-jaari Cheikh fuuti Fouti euh, li mu def fa mu jaar ba moo dem ba àgg Makka yu baree baree bari amoon na lum ci tudd keroog waaye programme bi des ba léegi ñu yëkk ne mbokk yi bëgg nañoo jëriñu ci Cheikh Omar Fouti yu bëgg nañ ko dollee xam kon ñu ngi leen di dalal ci suñu programme bi tey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 Muhammad ibn Abdallah salawaatullahi wa salaamu alayhi in mbokk yi déglu di ñu seetaan di jàkkoor rek ñun ñu jàkkaarloog yéen ñu ngi leen di nuyu ci nuyu islam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi sakku ci yéen ñaan di ñaan ñun ñëpp nañ ñaanal suñ bopp ñaanalante ndaxte yàlla moo ñu sant loolu le moo ñu ne uddoon yastajib lakum ñaan leen ma may leen kon nag ñaan ci jaamu yàlla la bokk te itam wax nañ ne képp ku ñaanalee nit ci làmmiñ woo xam ne mooy woo ko yàlla ñaan boobu yàlla mën na ko nangu yaakaar naa ne du ngeen ma yàlla ci suma man du ma ma ma yàlla ci seen làmmiñ ñu leen di nuyu ci loolu day am contentement Euh, di am surur di am mbégte di am kontaan ci dellu jàkkaarloo yéen ci Mame Body Nour puisque am Mame Body Nour li ko Omar waxee mooy mooy plateforme la boo xam ne dara lu muy leer rek waaw yal nañu yàlla may leer yal nañu yàlla leeralal li ñuy wax leeralal li ñuy dégg te ñu def lépp rek ñu gis yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf góor gi ci euh, muqaddima bu am solo boobu euh, kon rek euh, li ñuy def rek mooy dugg ci programme bi góor gi keroog programme bi paase comme si nga jaaroo nag ñun ci Cheikh Omarul Foutiyu mm-hmm. dem nga lu baree baree bari tudd nga ci yu ama am solo waaye bëgg nañ nga dolli ñu leeralal ñu kan mooy Cheikh Omar sëñ Omar laajte boobu nga laajte laajte bu am solo la laajte bu yaakaar la laajte bu yaatu la waaw kan mooy Cheikh Omar Fouti kooku mooy wax ci ker buñ xamee kan mooy Cheikh Omar Fouti danañ xam lan mooy jikko seen Omar Fouti danañ xam Omar Fouti moom mu lan la def moom mooy kan mm-hmm. fam juddu fam yaroo mm-hmm. lim jàng lim xam ak li nga xam ni moo doon yitteem ci addina bi yëpp nga yëpp na ko ci loola le Omar mm-hmm. Fuuti ni ñu ko waxoon bu yàgg moo ne moom fuutanke la dëkk bu ñu wax Halwaar ci la juddu dafa gaaw mokkal alxuraan nag dañ wax ne bi mu juróom-ñaari at la mokkal alxuraan bokk na ci kéemaan yiñ koy waxal muy kéemaan yoo xam ne xëy na ñu ko bëgg lool ñoo jéem a wane moom mooy kan ci ay kéemaan waaye man kéemaan taxuma jóg <laughs> puisque kéemaan mooy gisa soo gisee yàlla wàcce ko ci ci ci ab yonent <laughs> daf ko bu ko wan loo xam ni dana wan nit ñi kii li muy wax du waxi boppam mm. loolu mooy kéemaan wax nañ ne Cheikh Umar Fouti. Hmm. ci weeru koor. Hmm. daatu daanu namp wenu yaayam. Hmm. kooku ci kéemaan yi la. la boo xam ne eh, du mustahil. du mustahil waaye xam nañ ne ci ndaweem. yittiyee moo doon mokkal alquran. mokkal alquran. mu gaaw koo mokkal lool. alxuraan bi la xam ne soo ko xasee mokkal te yàlla wan la lim ci wax da ngay am leer ci sa xel ak sa xol ak sa jikko leer nag képp koo xam ne am nga ci li ngay wax day set li ngay jàng day matt leer li ngay def day jub puisque leer rek leer moy li nga xamné mhm. moy li nga xamné moy wan yoon deng nga mhm. mu dess nak ñu dem nak bo Cheikh Omar ci bopam mhm. deug deug suñ ko melal dana jafé waye nak am ay melal yo xamné mën nañ ko wax ci langue bi ci ben langage ci ben wax boo xam ne nit ñi mën nañ ko comprendre nit ñi mën nañ ko dégg. dégg mooy lan mooy ndax Cheikh Omar. ab xari la woon. li mhm. wax ab xari mhm. ci xam-xam. Mhm. ab xari ci jikko. waaw wala Cheikh Omar moom su fekkee dañ dem ci modern science. expression di current philosophical political sociological expression mm-hmm. suñ gisee nit koo xam ne daf leen yéem mm. ci xalaatam ak xam-xam ak jikkoom mm-hmm. dañuy wax ne dafa am charisme mm-hmm. charisme ci anglais mooy ab xariya waaw mooy nit koo xam ne da nga am supernatural da am jikko yoo xam ne ordinary people amuñ ko waaw da nga ko am ci xam-xam da nga ko am ci jikko da nga ko am ci fit da nga ko am ci dal da nga am ci liggéey da nga am ci da nga ko am ci euh, xam sa bopp mm-hmm. jikko boobule nga xam ne mën nañ koo gi ci Cheikh Omar mooy ne bam jàngee alquran bu wakkal ko mm-hmm. dafa jublu ci xam-xam mm-hmm. xam-xam bi nag képp boo xam ne xam-xam dañ ko gox bi la tey muy alquran tafsiru muy ahadis ah, leeral ko muy history muy siratu nabi muy ahadis muy tawhid muy mantiq muy lépp loo xam-xam-xam ne da dem ci fiqhi l islaami mm-hmm. su fekkee da nga dem ci quran ak tafsir tafasirul quran hmm. yëpp daf ko mokkaloon mokkal ko nga ci fiqhi lislaam yi hmm. moom mazhabu maliki la nekkoon mazhabul fiqhi yi ñeent lañ hmm. yow sax Omar yaa ko xam te loolu du suñ topic tey waaye mazhabul maliki moom ci la ci la maliki ci fiqhi mazhabu ashari ci ilmul kalaam ilmul kalaam mooy elmu tawhid waaw elmu tawhid dañ bëri waaye bi ci gën a fort bi ci gën biñ ci gën a ñoom ah, maliki mooy ashari dégg nga mhm. suñ demee nag ci elmu mhm. tasawuf tasawuf tasawuf ci tasawuf moom mbir la bu xam ne defe naa dox nañu dolli koo leeral waaye masabu tasawuf boowule nag mhm. ñoom tariqa tijaani la jël dégg nga mm-hmm. kon nag mazahib bi arbaa yi mm-hmm. mazhab Malik lay jël mm-hmm. mazhab bi ilmul kalaam nga ne mooy tawhid ashari lay jël mazhabu tasawuf nga xam ne mooy spiritual euh, perfect bi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne moom la nit ñi dégg l'islam bu baax te jëfandikoo ko moom la woo tasawuf tasawuf nag mën nañ ko soufisme soufisme waaw man ko suuf mooy suuf ni hmm. mooy soufisme mooy masaay bu soofiya soofiya waaw ah, soofiya muy soofiya muy mbir moo xam ne moom mooy lislaam de hmm. waaye dafa fekk bari na ci ulama yi ñoo xam ne hmm. ànduñ ci ah, kooku le Alaaji Omar nag yitteem moo doon ñëw fii wan nit ñi ne leen suufisme mm-hmm. tasawuf dëgg-dëgg mm-hmm. mooy lislaam ci boppam loolu moo doon gën a gën a nekk gi mm-hmm. waaye nag bi mu dox di jàngee alquran ba mokkal ko xam tafasir yëpp mokkal leen dem ci fiq mazahib al arba yëpp mokkal leen dem ci affaire jaamu yàlla dëgg-dëgg yitteem moo doon li nga xam ne moom lañ war a def yitte te alaaji war dund ci mooy ne yàlla daf ñu wax ne ci alquran maa xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Cheikh Omar dafa dafa dafa understand dafa déggoon wax bi le ne yàlla kan ndeke lim fi def lépp lépp lépp kim ci tànn sant ko na ngeen ma jaamu. Mm. mooy jinni ak doomu aadama. Mm-hmm. Mm-hmm. mu des nag jaamu yàlla mooy lan. Mm-hmm. alaaji Omar jéem ñëw wan ne yàlla. wan nañu ne jaamu ko. du dara lu dafa am benn système bu mu wàccee. koy wax lan muy diin. diin ah, diin. jaamu yàlla bi yàlla santaane. nim ñu ko wanee parce que dafa am système boo xam ne hmm. manhaj boo xam ne yoon ngoo xam ne su la ci tegee daf lay wat yoon yi ba leer nañ su noon ne jaamu yàlla jaam ngeen ma jaamu yàlla rek hmm. ilal yaa bu dooni su fa yemoon tey hmm. duñ xam nañ koy jaamoo waaye nag bu mu bëggee xam niñ koy jaamoo dafa am doomu aadama dafa am aadama mhm. ci aadama la jàmm daal ci jàkkate xalam xalaatu jinne wa leen sa la wax leen sa lan mhm. mooy doomu aadama mhm. mu talee ko nag ca doomu aadama mu talee ko ci aadama ci boppam mu am benn jamono mu ne woo ñi ko gën a jege moom yàlla mooy malaaka yi malaaka yi ñooy ñi nga xam ni danañ dem ci al ñalaaka yi ñooy ñan ci jéem a wax danañ ko jéem a leerale waaye dafa wooy mm-hmm. malaaka yi ci leer lañ leen mm-hmm. seen fonction seen liggéey mm-hmm. mooy tasbih wa taqdis wa taslim seen liggéey du dama lu mooy yusabbihuna bi amdihi laylan wa naharan ñoom tasbih rek duñ lekk duñ naan amuñ benn liggéey lu mooy tasbih rekk mooy hmm. sellal yàlla gëm yàlla màggal yàlla tagg yàlla yéem yàlla mooy hmm. liggéey malaaka yàlla kontaan ci ñoom lool bi tax na be kere bam mu jëlee eh, dogal hmm. ne léegi nag dafa am bind suuf si ba pare dama ci bugg a génnee loo xam ne danaa ko jox secret boo xam ne dana mën a saytu liggéey bi nga xam ni moom laa bugg mu saytu ko. waaw. Hmm. mu ne Isa sa waytu. wa hmm. dafartu fi min ruuhi fa xuuloo sajidin hmm. malaaka yi suuf si day bind naa ko ba pare waaye ana dana am lu ma ci génnee. loo xam ne su ma ko defaree ba pare. danaa def si moom benn secret boo xam ne. su secret bi ak xam-xam bi duggee ci boppam na ngeen ko sumil mbaxana. na ngeen ko sumil mbaxana. waaw. <laughs> dégg hmm. yi puisque malaaka yi dañ xam dañ yàgg xam yàlla ci si leeru yàlla lañ leen bindi hmm. ñu yëg ni suuf sii kat hmm. am na ku fi mas def ay njaaxum kooku kan la waxuñ ko waaye dañ ne ko ragal nañ ne soo fi defee ku dul ñun. Ah. dana fi def njaxu. dana <laughs> ak sagoom. ak maandoom ak xereñam ak ah, yitteem waxul malaaka yi ne leen yéen ndeke li ma leen sant ngeen object ko yéen xamu leen daal def ne leen ne hmm. li ma fi bugga ki ma fi bugga def hmm. ak li ma ko sant te ngeen ragal ne dana ko yàq loolu mooy laaj bu rëy rëy malaaka ko dëgg-dëgg xamuñ ko xamuñ ko hmm. ak sagom ak nim ñu jàngalee niñ war a jàngee niñ war a yaroo hmm. ah mu ne hmm. ki nga xam ne moom la fi tabb pour mu nekkal ko fi mu ko kooku waxul malaaka ni mooy aadama de déedéet waaye dafa du aadama علم آدم أسماء كلها وانا كنا خمل كنا أسماء كلها كم عمر أسماء كلها تو دقيتي ما يحقق حقيقة الحروف والأسماء في الوجودات حقيقة الحروف والأسماء في الوجودات. حقيقة الحروف الحروف والأسماء في موجودات المخلوقات كله خمجة Uh-huh. soo demee ci elmul baatini uh-huh. am na lu ñuy wax sirul huruf uh-huh. sirul huruf sirul huruf awliyaawu yeeg ñi yàlla dénk lépp lim leen gën a dénc mooy sirul huruf sirul harf sirul harf ñu ko xam tey te di ma déglu dañ xam ne sirul harf mooy lan sirul harf mooy diñ joxe ilham yonent jox leen xarf puisque xarf du li ngay dajale ba am ci kalima. Hmm, nga xam soo ko boolantee. mu defal la kalima kalima ah. hmm. jox la wax jox la xam-xam. Hmm. ko mooy mooy xaqiqatul xuruuf. wal asmaa moom la yàlla xamal aadama. ba bam ko xamee nag. mu woowaat malaaka yi ne leen gannaaw li ma ko dénk. te ngeen am ci jaaxle xamal naa ko ko mhm. waaye man duma leen ko xamal waaye sant naa ko ma xamal leen ko sant na ko ma xamal waaw mhm. mhm. ne adama allimhum am mbihum asmaahi kulla am mbihum asmaahim am mbihum allimhum xamal leen jàngal leen asmaawu xaqiqatul xuruf wal asma bi nga xam ne ñoom dañ ko réeree aadama jàngal leen ko ba leen ko aadama jàngalee lañ yëg xam ne nag ndeke aadama yàlla mi nga xam ne moo ñuy bindu sant ñu li ñuy def xamal na ko xamal na ko lim ñu xamatut lim ñu gannaaw xamal na ko li ñu xala li ñu lim ñu mm-hmm. te sa sant ko mu jàngal ñu ko. Mm. dañ war a nag sumil ko mbaxale jébbalu ci moom. bu wa nag. Mm-hmm. buñ ne la usjudu ñoom ñëpp ñu sujjoot. ñoom ñu sujjoot dara lu may. Mm-hmm. nangu ndigal. dégg ndigal. topp ndigal. waaye yàlla nangul kenn sujjootal kenn ku may yoo moom. bisu sujjóot mooy jébbalu topp ndigal ànd déglu ñàkk gis ku dul moom kooku mooy sujjóot mooy maanaam sujjóot bi waaye ba ni bañ ko sujjóotee am kenn ci mbindeef yi bañ waaye ki bañ du malaaka de déedéet du malaaka déedéet <laughs> waaye yàlla uh-huh. ak kéemaanam uh-huh. ndeke képp lu def lim santaane te setal ko ci hmm. yeex ca sàkk dañañ la génn dañ lay yóbbu ci martaba malaaka képp koo xam ni gis nga yàlla xam yàlla uh-huh. xam lim santaane hmm. injonction hmm. nga def ko lim tare mm. inhibition nga baye ko mm-hmm. te setal ko sellal ko mm-hmm. da ngay dem a dem a am jikko malaaka kenn mën a du malaaka mm-hmm. kooku nag dafa amoon ku ko meloon kenn xamutoon turam kenn xamutoon turam waaye mu bañ mu bañ a sujjoon moom rek bañ a sujjoon <laughs> kaana minal jinni fa fasaxa an rabbi bokkutoon ak yéen kii du woon malaaka puisque malaaka laa yaasuuna laa maa amaru wala faroon kon nag kii bokkuteen ci yéen te itam lu tax danaa ko laaj ci seen kanam lu tax li ma ko sant defu ko defu ko ko lima mhm. mu ne ko laa asjudu liman xalaqta tiinan manuma jëppalu ci ki xam ne yaa ngi suuf bi nga xam ni moo gën a suufi mbell mi nga ma tuddee mooy lan mu ne mhm. mu ne ana xalaq mhm. ana xayrun minhu xayrun minhu wax ja man maa ko gën gis su fekkoon dafa yem ci ne <coughs> da nga ko bindi ci suuf suuf moo gën a suufi sax uh-huh. muy nit ñu mën a dégg waaye uh-huh. nag mu ne ko ana xayrun minhu man maa ko gën uh-huh. mu juum nag li ma ko gënee mooy lan mooy man yaa ngi ma bindi safara kii mu ngi ko bindi yitiin waaye ci ndofam ak réeram ak texeewadim xamul ne suuf moo gën a kowe dara ci safara mënul xam ne ndiki safara ñu ngi ko bindee ci suuf safara ci boppam ah. ci suuf la ci ne as soo demee ci suuru yaasin ah. asr min ash-shajarati axdar xalna min an-nuur min ash-shajarati lati axdara naaran axrajna ah. min ash-shajarati axdara naaran mm-hmm. tu akhdaru sayyara sajada suufa ku jur suufa ku jur yàlla mu ne sajadatil akhdari ci la génnee naar ci la génnee naar mooy mu ne naar tey suñ ko explain in the modern scientific language du dara lu mooy light energy laay ina ji mooy ina ji mooy safara énergie rek mooy safara énergie boobule ah. laay ina ji ñu ko jëlee ci nooru ya ci yaaru yàlla ñu ci neeru leeru yàlla lañ ko jëlee light energy is a manifestation mm-hmm. of qudratullah qudratullah subhanahu mm-hmm. dafa réer ak réeram moo tax mu ne maa gën ah. puisque fiñ ma bindee moo gën a koy fiñ ko bindee ndeke moom fiñ ko bindee moo koy fiñ ko bindee te xamu ko. moom réer dëgg la yàlla musal ci réer dégg su ko defee yàlla moomu nag mu leen waxee lii daf ko rëbb dafa mooy daf ko wàccee hmm. daf ko toroxal dégg nga hmm. toroxtaande boobu nag métti ko lool mm-hmm. moom mm-hmm. dara ji jox aadama naxari ko lool mu fas yéene nag lim yàq mm. lim ñàkk mm. bu ko kenn am <laughs> mooy nag mu añaanee aadama teragaaj bi tuba aadama mm-hmm. biñ ko joxee lii dénk ko liñ ko dénk dafa am xéewal buñ ko jox mooy ni mhm. janna dafa am janna mhm. bi nga xam ni mooy ajjana mhm. fiha min maain xayru aasinin wa fiha min labanin xayru ah wala maain la fa dex li fay dox min maain xayru xayru aasinin wa min labanin min maain xayru aasinin labanin ايوه غيروا دفن لبني و و و و و ودفن واصل دفن نتي نتي دفن من ماء غير عادي ولبني وعسل عسل موي لوغ بانيخ ريك فونيك لب لولا نيخ تي بانيخ تي تي فيخ تي يام تي تيراغا تي دال تي ليك لو نيخ ay fruit yu neex dafa fees dell mooy ajjana yàlla ne ko nag kuloo min ay siitum lépp lu fi nekk yow laa ko fi defal lekkal naanal muy teraanga joo xam ni kii tax mu ni mu xeeb ko ne ya moo ko gën hmm. kooku lañ ko jox loolu nag naqari <laughs> ko mu fas yéene nag mu yàq mu yà mu fas yéene nag aadama ñàkk liñ ko jox waaw mu dem ci aadama mm-hmm. xam nga li nga xam ni mooy lii xam ñu war a dollee bàyyi xel ci ne mënuñu xam ni aadama biñ ko teralee jox ko teraanga ji mm-hmm. may nañ iblis access to him ah. mm-hmm. luñ war a la war nañ ko xalaat gannaaw dañ mm. mm. am yoon ba mën a contact Adama ca foofa bu nekk waaye loolu beyond our mm-hmm. comprehension dafa dafa ëpp ëpp liñ mën a liñ mën a grâce liñ mën a gis mm. waaye lu mën a xew mm. alxuraan mu ne ñu mm. am na contact Adama contact ba mu ne daf ko géñal ne ko liñ la xéewal am na ci loo xam ne aye nañ la waaye soo ko laaloo dootoo fi jëm te moom ñàkk fa jóg rek la bëgg ah kenn bëgg faa jóg moom eh? iblis liñ bëgg hmm. mu jógee fa iblis liñ bëgg liñ bëgg mooy Adama jógee fa hmm. te Adama moom ah, ku xas du gaañ na <laughs> bëggul faa jógee dootuma mën a eh, eh, waaye nag mu gëñal ko wa qasamahuma inni lakuma la mina nasihin te gëñ dafa nekk mbir moo xam ni yàlla daf ko fookal tonk ko mhm. ba ne mhm. képp ku dem xam ne ngi toog di gëm dootoo mën wax fenn déedéet dootoo ko man mhm. looloo tax mam ci suñ ñun suñ liggéey tey comité of inquiry yi gis nii tey commission yi ñu dégg tey. Eh. soo ñëwee dañ la mën a gën a gëñal. même head of state. Mm-hmm. balaa moo jël fonction. Mm-hmm. dafa gëñ. Mm-hmm. mooy soo gëñee. yaakaar dañ ne. wax nga dëgg ci du fen. looloo Adama. déglu ko. ba mu ko gëñalee. mu yaakaar ne su laalee lii. Eh. du ko génnee fii. parce que Adama xamoon na valeur yu ngëñ. waaw waaw waaye foogutoon ne hmm. su laalee lii dana fa génnee puisque daf ne ko yàlla daf ne ko bu ko laal waaye du wax ko dëgg soo laalee ma dàq de ah, ko tere rek mu laal ko tere su xamoon ne su ko ñàkk li maam du ko laal ko laalee uh-huh. yàlla wàcce ko kooku nag ba tey hmm. lépp lu ak ko ci doomu aadama lépp lu bokk ci doomu aadama tey mm. xéewalu xéewalu àjjana boobule mën nga ko am ci loo xam ne mm-hmm. xam nga li yàlla bëgg santaane ko nga def ko lim tere nga bàyyi ko kooku yàlla mën na la may xéewal ci àjjana boobule mm. iblis nag mm-hmm. ak kañaanam mm. ak mbonam mu ñaan yàlla dee ko nag an zirri ilaa yawmi yub'athun ilaa yawmi yub'athun ah la ughwiyannahum hmm. ajma'ina hmm. ughwiyannahum ajma'ina mooy ne hmm. danaa fexe bañ def li nga tere na sax ci li nga santaane ah, aj maxeet suma laatiyannahum min bayni aydihim ah. wa min xalfihim ah. wa an aymanihim wa an shamailihim ah. wala tajidu aktharahum saakiriin danaa leen jiyee ci kanam gannaaw ndoxo ndeyjoor ba fexe ba lépp loo tere mu ñaaw ma rafetal ko wala uzayyinanna lahum a'maalahum lépp loo tegle ci lu baax léegi Omar ñu ngi bugg a dem ci lu gën a bugguma ñu dog suñ suñ suñ suñ jokkoo ak Omar Fouti. ak Omar Fouti waaw. waaye li ñuy wax yëpp. waaw mooy li nga xam ne. moom la sa yàlla sant aadama jaralee ko ko mooy wa allama aadama asma kullaha mooy xaqaqatil xuruuf wal asma moom lañ xamal aadama moo tax ñu dénk ko li fi nekk ndénkaane loolu le du dara lu mooy ibaada moo tax mu ne. Mhm. binduma leen lu may ngeen jaamu ma. ibaaba loolu mooy lan. Hmm? mooy diin. Hmm. mooy diine ji. Hmm. mu ne. Mhm. Eh, ci alxuraan. Mhm. Eh, mu ne astafayna lakum min addiini. walaqad walaqad istafaa lakum diina falaa tamuutunna o oh, lima len tanal mhm. moy diine na ngeen jeng mhm. diine nak di lan mhm. moy dafa am ay pilas dafa am arkan moy iman moy islam moy ihsan moy maarifatu allah musada yooyu le yoyule yooyu le nag pour nga doxal ko dañ ko wara a moy diine diin alaaji Omar Fuuti lii ko indi lii li bugg a wane wan iman mooy lan mhm. juróom benni ponk mhm. islam mooy lan juróomi ponk la isaan mooy lan di di di di di spirit mooy di mooy di mooy di di power mhm. ah secret bi nga xam ne doxal islam mooy doxal iman mooy doxal lépp mu nak ala Alaaji Umar bi mu ñëwee. Mhm. jàng lislaam mhm. jàng xuraan dégg ko. Mhm. masaay ba fa tasawuf mu dégg ko. mu jóg nag na am yitte nag pour dox gis li fi nekk. ba xam arkaanu diini yii ñu wax nii. ak diini ci boppam. naka la ñu mën a defee li ñu bindu ñu. guided bi guided by moo tax na mu mu tukki. mu tukki bi jógee. Ah. Fuuta. Hmm. tukki na. tukki na dem dem na fu ñu wax Masina. Masina Faasina Masina. Hmm. boobu mu ngi ci Mali tey. Ah, waaw waaw mu ngi ci Mali. waaw boobu bu fa nekkoon nu ñuy wax. Hmm. Amadou Labbo. bi mu fa jógee. dem na Sokoto. Sokoto ka fa nekkoon mooy Mouhamed Bello moo wuutu woon Ousmane Danfodio. waaw. borno. بورنو mhm. ci sark Nigeria la Ya east of Nigeria waaw ba fa jógee dem na misra misra waaw dem defe naa dem na saam itam mhm. mu mu jigi nak mu ag nak ci Makka ak Medina balaa fa ag. Mm. he mastered all uh, Islamic sciences mm. Amuna li ñuy wax tay el mm. zahir wal batin. Mhm. ilmu zahir wal batin suñ la ko waxee tey mooy exoteric exoteric knowledge of everything ilmu zahir mooy exoteric knowledge ilmu batin mooy exoteric knowledge yëpp xamoon na ko ba mu demee ba xam loolu le waaye ndeke desee na ko nag moo xam système bi nga xam ne mooy di spiritual mooy di driving force to implement Iman and, and, and, and, and Islam. And Islam. Mm-hmm. Driving force mm-hmm. to implement perfectly mm-hmm. Iman, which is Iman Billahi, Malaikatihi, Kutubihi, Rusuli, Yomil kadri, wasari, Wasarihi, Iman, Iman Bubule. Mm. pour nga dégg ko bu baax di driving force. Mm. iman billah mhm. ni allah ci boppam mhm. pour nga xam ko bu baax da nga xam lan mooy xaqiqatul xaaliq xaqiqatu mhm. xaalis mooy infiraaduhu bi ijaadil mutlaq pour nga xam yàlla dëgg-dëgg mooy nga xam ne li fi nekk moo ko bind te it moo moo ko yore te nga xam ne is present is is not absent kooku iman bi laa iman bi malaakat yi mooy nga yëg ne malaaka yi yàlla leen bindi ci leer sant leen jox leen responsibility nga xam ni dañ maintain law and order order and harmony li ñuy wax order mm-hmm. mooy nizaam harmony mm-hmm. mooy insijaam mm-hmm. ñoom ñoo ko maintain équilibrium mooy misaan misaan boobule ñoom ñoo ko yore ci bi mu des nag uh, mercy mercy and justice ak justice yii ole élément yii mm. malaaka yi ñoo ko yore ba li fi nekk mën a nekk te du yëngatu su la di gindi suñ nga malaaka ah. lii nga war a am loo ko xam lan mooy wali yu malaaka ah. <laughs> soo fa jógee ah. nga dem ci malaaka di kutub mm-hmm. yi mooy di sommary exposition mm-hmm. of allama adama asma kullaha xaqaayiqil xuruuf wal asma moom lañ xamal adama kutub yi loolu la loolu lañ loolu lañ bind ci téere yiñ jox maanaam kii liñ jox mhm. kii euh, yonent yi moo tax danga war a gëm ni kitaab bi mhm. du dara lu may mhm. maari secret mi jox Adama su ko defee. ñu ne da nga da kilif yi bu ci weddi bu ci weddi kenn ci kili ci kitaab bi la ñu ci mhm. dala ci tawreet ba linjiil ba ñëw ci Quraan. Mhm. moo tax iman bi kutub mooy loolu. rusul yi mhm. mooy ñoom ñi jox téere yi. firil leen ko. yónnee leen ci nit ñi. pour ñu firi leen ko pour ñu teg seen tànk da nga war a bilif wal yawmil aaxiri hmm. mooy fi mu nekk nii fii nekk nii hmm. ñu ngi fiy dund waaye danañ dee waaw suñ fi jógee hmm. dañu am beneen place mooy yawmil aaxiri nga gëm ni dana am dana am te am soo fa demee da nga da nga account ci legaloon nga def yi mu te sa iman bel qadri xayri wa sërri mooy bi nga juddoo liñ fi fekk soo demee bàyyi ko fi na nga gëm ne lii moo xew mooy xadra kii nag mooy components components mooy di mooy elements of iman Omar Fuuti lii la bëggoon a wan nit ñi ci iman uh-huh. ñu dem ci islam uh-huh. islam uh-huh. liggéey la shahadatu an laa looy wax la sala zaka ziyam hajj alaaji war mu ne leen fi mu nekk nii soo demee ci ci ci pile di eh, eh, arkaanul diin hmm. nga jëm ci indi ihsaan hmm. mu ne mu ngi mel ni tabax jëf hmm. tabax bi su amul ndi su amul foundation dafa collapse ñu ne ko mooy kaa foundation mu ne ihsaan an taabuda laa ka annaka lam takun taraa fi naa Alaaji Omar Fuuti mu ne sooy demee iman te gisul fa ihsaan mu ngi mel ni machine boo xam ne amul oil te lubrifié bi. <laughs> allahu akbar soo machine. Hmm. te amul oil. dafa lakk. Hmm. soo taxawee building. Hmm. te amul faamu dafa ko laam. te nag kon. lubrifié sur oil bi. ci machine bi. mooy ihsaan. mooy ci ci ci islam ah mooy foundation bi mu ne nag fi mu nekk nii man Omarul Fuuti li ma jàng bi ma demee ba gis Muhammadul Xaali mm-hmm. daf ma wanne ndeke islam without tasawuf is nothing tasawuf ñu ne tasawuf mu wala ne mu jàngal ma ne mm-hmm. tasawuf mooy ibadatul ihsan ibadatul iman bi martabatil ihsan ibadatu rahman ibadatu rahman bi maqaamil ihsan loo ciy def loo def mhm. na ko gis yàlla puisque ihsan biñ ko laajee yónnee ti daf ne mhm. an taabu da laa kaan naka tarafin lam takun tarafinu yarak lépp loo xalaat gisu fa yàlla mhm. da juum lépp loo defe gisutoo yàlla du sotti islam diine bi nga xam ne moom la ñu yàlla yàlla daf ñu bind du dara lu mooy ci jaamu ko système bi ñu bi ko système mooy diin diine mooy lan mooy arkaanil arbaa iman islam ihsan ñi ko dégg nag bu baax si déggoo ko ci martabatu tasawuf martabatu ihsan loolu la uh, Omar Fuuti jàngee ci Momadul Xaali muy tariqa tijaaniya mu bugg koo mu bugg koo tasaare fii waaw mu ngoog mm-hmm, mm-hmm. moo tax bi mu tukkee ba àgg Mbàkka mm. ba gisee Mouhamadul Xaali ah. bile ñu ne ko nag dellul Afrique defar ko on the basis of this knowledge of deen lii moo ko indi woon lii moo ko indi woon mm-hmm. moo tax nag bi mm. mu jógee Màkka mm. mu ngi jaat Borno Borno mm. amoon na ku jox Mamadou Kani mm. moom moo doon sultaan ba waaye amutoon the precept of ihsan mm. xamoon na iman islam waaye ihsan leeru ci bopp bi bam demee ba bëgg ko fa saxal ko génne ko fa Mamadou Kani mi dafa Omafu ờ, thì chỉ bộ phẩm chỉ minh nập thì mà giang được. Ngoài, ừ. ừ. đánh đơn giê mà, rei, irtial, assassination. Wow, wae, suñ demee mënuñ koo mënuñ koo gis mënuñ koo gis ñu ne nañ xaar ba guddi. bañ demee ba guddi. ñu fekk junuudu laahi hawlahu ñu fekk army of Allah subhanahu wa taala surrounding him Hmm. Hmm. mi ci bopom ci li Cheikh Omar Fouta binde ko academy bind teud hmm. gisi gisi yonent bi ci geunt mu ko atruk abdallah fi ardillah bayil jamu yalla, ci yalla, muda mu def nañ ko sat loolu tax mu bàyyi ko ba bu joge fum dem moy Sokoto fekk fu mohammed Bello fekk Mouhamed Bello mhm. moom moo doon Soxna Dame Fodiyo mhm. Soxna Dame Fodiyo xaadiri la woon la woon mhm. moom am na ci tasawuf tuuti loo xam ni xam na ni Omar Fouti concept of tasawuf ibadatu iman ibadatu rahman bi ma moom mosoon na ci dara toog tax mu toléré ko mu ànd ak bi ma nekkee Nigeria. amoon na ku ñu waziru Junaidi. Junaidi moom moo doon ki nga xam ne moo doon prime ministre Ousmane Dan Fodio. wazir lañ koy wax. mu ne ma. Omar Fouti bi mu fi ñëwee. juróom-ñetti at juróom-ñeenti at yoo xam ne. guddeeg bëccëg di tàggoo son sultan Bello. amatuñ lu may loolu ndeketee. ci philosophie bi. pour dégg diine ala asaasil iman mhm. moom lañ doon waxante te moom lañ ko sant mu tasaare ko de ba ko defee mhm. mu ànd ak moom ba mu ne ko soo fi jogee danaa la dénk li ma yore àggoon nañ foofu mhm. waaye nag majlisul eldas ñu wax sultaan Bello ne ko affaire xilaafa bi moomoo ko doo ko mën a dénkaane <laughs> loolu tax bu jógee Sokoto joge mu ngi ñew masina, masina, masina ku ñu wa ahmadu Ahmadou hmm. balaa mu dem hmm. bu ñu jare masina hmm. ahmad Lab mo fa neggon moko ko ba mu establish Islamic State waye bi muy delu ci sitam mo fa nekkoon sultan ndeke moom ta amul concept of ibadatul rahman bi maqam al-islam mo faqih la woon ah affaire tasawuf nekku ci mbiram mu xatal ko mm-hmm. mu jógee fa dem Fuuta Jaloor almaami Fuuta Jaloor ku jo almaami Umar mm-hmm. kooku itam mm-hmm. fiir ko yëg ni kii ko fi bàyyi danaan ñàkk suma nguur gi mu dàq ko mu dàq ko mu làqu ci benn jaalinku jaalinku jaalinke xabile bu ñuy am na ku ñoo Yimba Saako. Hmm. Yimba Saako moomule. Hmm. moom moo doon tribal chief. Hmm. in the area. under the authority of Almami. kooku jox ko place mu di ko fay at mu jot nangam. foofu de ci wax jegunku. fa nekk nag bàyyi fa njobootam bàyyi fa ñim daan dimbalante jóg nag di wër to identify potential na ñoo xam ne danañ ko mën a dimbale mu topp topp mu ko tati jihaadam waaye nag jihaad bi hmm. fam ko tàmbalee hmm. mooy jihaadu nafs mooy li ñuy wa spiritual self discipline hmm, dégg am na ci fukki juróom ñaar fukki at ak juróom benn yoo la doon def former jamaa train them inculcate their true meaning of Islam. puisque soo amul true meaning of Islam Omar doo mën a def li tax yàlla bind la li yàlla bind la mooy nga jaamu ko nim la ko wane muy diin. diin mooy arkaan iman islam ihsan soo ko understandul doo mën a def li yàlla santaane ba nga xam ne def li yàlla bind la lii la Omar yëg fas def ko dégg mm-hmm. moo tax nag. bi mu ñëwee. jógee Fuuta. Mhm. dem na dem na dem na jógee Guinée. Mhm. gisee Bissau. ñëw Gambia. Mhm. dem Saloum. dem Kajoor Bawal dem Fuuta. jógee fa nag dellu ci place bi nga xam ne mooy Jigunku nga xam ne fala fala fala fala fala commencé nag stable si jamaa. Jigunku Jigunku. fan la nekk mu ngi fem ci Guinée. mu ngi ci Guinée. Jigunku. waaw ba mu demee Jigunku nag. Uh-huh. kii yimba saako. yëg ne kii dafa am mbooloo. dafa te kii ku ko bàyyi. Hmm. danañu xatal <laughs> mu dàq ko. Oh. moo tax mu gàddaay dem dingiraay. Hmm. dingiraay. Hmm. fala la defee mm, eh, makkaanul muhajara. difaaya nag ñi ko topp. in insaar mu muhajirin ñi nga xam ne. moom lañ fekk di yi ñu jublu ci moom ñoom la Ikuwait Yamaleeg al Ansar ak yonent bi ci Madina ñi nga xam ne ñoo ko fekk si fuñ mën a tiima ñi nga xam ne ñu ngi jógee Hawsalaan ñu ngi jógee Fuuta ñu ngi jógee Gambia ñu ngi jógee fu nekk mu tulee muhajirin ñooñu nag ñoo nekk ba am doole ba sax xiri xiri yéefar yi nag ak sultaan yi nga xam ne dañ dañ yàqu dañ dañ dañ corrupt mm. fas yéene ko kooku moo tax mu yëkkati nag sila li divaay naf loola moo doon sabab moom li mu bëggoon mm. mooy mm. spiritual self discipline mooy jihaadi nafs mm-hmm. jihaadu nafs dara du dara lu du def lu lu may arkaanil islam yi ma leen wax muy iman ak islam nga déggee ko ni ma leen ko sirilee ci Omar mm-hmm. nga xam iman mooy lan mm-hmm. lan la wund islam mooy lan lan la wund mm-hmm. pour na nga mën koo def mm. foog nga am jihaadu nafs mooy tazkiyatu nafs wa tathir al qalb wa tanwir al aql mooy da ngay jaamu yàlla bu baax nag pour yàlla wan la boppam ba nga mucc ci seytaane. allahu akbar góor gi xam naa lii moom euh, <coughs> xuus nga am ñun ci Cheikh Omar loo xam ne daanaka euh, doyal si yombul. xam naa ne tey moom ñu ngi may junj ne waxtu wi li ci des bariwul waaye euh, li ma bëgg a laaj rek góor gi wax nga ñu ne El Hadj Omar moom ci wàllu tawhid ashari la woon. Mm-hmm. wax nga ñu it himmaam moom moom soofi la woon. waaye li ko gënoon a yitteel mooy mooy mu tasaare islam al islam ci ci ci ci ci ci namati suufi waaw maanaam jaamu yàlla ci ibadatu rahman bi maqaami lisaan loolu ci la ci la ci la ci la dugg dem Mali dem fat Nigeria dem wër yëpp ba ba ba ba ba ba ji hmm. waaw mu mel ni jàngal nga ñu it ne yëkkati silaax la ko waraloon mooy euh, dafa dafa mel ni chey ëttiraar yi la woon ci moom mm, waaw ndax su sañoon moom la mu bëggoon mooy mooy woo nit ñi ci tasaare mooy tasaare l'islam bi ci jàmm mm-hmm. xamal leen nag mm-hmm. islam sahi islam bu baax xam ne fi ñu ko mm-hmm. ñu ngi ko teg ci ci teg ci masa concept of tasawuf mooy ibadatu rahman bi ma maqamil insan mhm. koo xam ne mhm. yow nit jàmm nga mhm. te loo def yàlla nga fa gis kooku le mooy nit koo xam ne mën naa def li ko yàlla sant yàlla bindu ko te jàmm am soo bëggoon a tey euh, xam naa li des si waxtu bi bariwul ñeenti minute moo ci def mm. léegi soo ñu bëggoon a tënkal maanaam euh, euh, njëriñ njëriñ li nga xam ne moom la nit ñi jëlee ci Omar jëlee ci Cheikh ci ci ak ci doxam ak jàngaleem ci lu mooy ne uh-huh. Omar dafa tàmbalee ci njàng uh-huh. ba xam xam bu wer mooy propre knowledge mooy dafa am Quran dafa am sunna dafa tay daf ko jàng fi ñuy tàmbalee mooy ne jàng xam benn mhm. suñ jàngee xam mhm. mu des nag fi mu nekk nii pour ibadatullah nag lañ koy defalee mhm. yàlla war ñu ko ci diini ji arkaani diini yi nañ ko toppatoo waaye nag nañ ko toppatoo ci xam nag iman bi laay lan la wund du yëg ne rek yàlla ngi fii mooy yàlla bind te yàlla soseen yàlla yore te yàlla ngi fi yàlla ngi yow mu iman bi imaam yi malaaykat yi mhm. daf leen dénk système harmonie système bi nga xam mooy mhm. al intis istijaam mhm. nga xam ne mu ngi jàmbañ ci kook suuf yëpp ñu ko dénk malaaka yi moo tax ne na nga wóoru malaaka yi mm-hmm. soo fa jógee kutub yi ma adam soo li yàlla secret bi yàlla xamal adam mm-hmm. la def ci téere yi yonent yi mm-hmm. loolu leen wax ñu tasaare ko suñ gëmee loolu leen nag ñoom suñ amee xam-xam seet li ci téere yi ñu jëfandikoo ko ñu jël nag bi defee ko ci anam boo xam ne dañ ciy gis yàlla mooy tariqa bi nga xam ne muy tijaani yi waral loolu ñu koy defee mooy lim ñu wan ci lu yomb mooy ne ndeke balaa nga ca àgg mhm. da nga am ñetti yëf yoo xam ne mhm. mooy jëfandikoo mooy da nga saxoo istighfar mooy far bakkaat yi nga saxee zikrullah mhm. mooy laabal xel yi alaa bi zikrillahi tatmainnul quluub nga saxee salaatu lan yi yi yoo looloo tax tariqa tijaani suñ ko toppee suñ ko toppee mooy wirde hmm. wasifa sikkirul jamaa hmm. du dara lu mooy lii ah, mooy waaw ku ci langaamu hmm. te muy dëgg ci yow nga am ci xalaas yàlla day socc sa sa sa bakkan dafa socc bakkan jërëjëf góor gi xam naa ne euh, li ñuy wax ne lu duuf ci nag wi xajul ci cin li <laughs> waaye dañuy jox mbokk yi rek di daje incha allahu ba beneen yoon waaye waaye di wax ne euh, programme bi moom jàngale la boo xam ne xam-xam la xam-xam bi fi wàcc tey <laughs> góor gi yaakaar naa ne euh, ku ko doon tas di ko tas nit ñi mën nañ si bind ay bukk waaye ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla rek mu dolli la fee yàggal amiin amiin di di wax ne xam naa ne ni ñi suñ toppee programme bi comme niñ ko waxee <laughs> maanaam dinañ ci defaru ci jikko mm-hmm. dinañ ci defaru ci xel ma xel ci mm-hmm. xel ci xam-xam waaye danañ ci defaru ci xam-xam mm-hmm. waaw ndax ndax ndax ci xam-xam soo déggee ni Cheikh Omar Fouti jàngee xam-xam ah. <laughs> da nga defaru ci xam-xam <laughs> su fekkee ne dégg nga ni mu doon jaamoo yàlla <laughs> ah. da nga defaru ci ci jikko jikko waaw su fekkee ne dégg nga nam saxoo xoon nam nam boole xoon xaqiqa ak ah. ak seria di nga defaru ci xel. mu ko waaw. Mm. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baax mm. di di ñaan yàlla mu dolli leen fee yàggal. ñuy dolle def jotaay yu mel nii. Mm. ndax defar nit jotaay bi jotaay yu mel nii. mooy defar nit binaaw leen sànni. mooy defar nit. mooy defar nit. ndax ndax soo seetloo euh, point bi nga xam ne moom nga wax ci iman ak ihsan ak ak ak ak islam. Ah. maanaam dafa mel ni euh, ihsan eh. mooy mooy fuel. <laughs> bi nga xam ne mooy fuel islaam ak iman. mooy driving force waaw. so mu mel ni yooyu yooyu xam ko dafa am solo. Ah, waaw nit ki mën koo bàyyi xel ah. kon. Um, ñu ngi may woon ne suñu waxtu yi jeex na takk kon ñu ngi sant suñu mbokki caméraman yeeg um, technicien yi di sant waa kër gi QTV ñi la ko dalee ci kaw ba ci suuf. wax dëgg yàlla di leen ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen tawfiq ñoom itamit góorgóorlu nañ trop jàpp waaw dëgg dëgg dëgg yal nañu yàlla fayal leen jàmbaar lañ bi jaay rasulilah mm. kon góor gi sa kàddu gu mujj rek su mooy nekk rifi ki nekk nii mm. nañ jéem a xeeñtu alaaji Omar Fuuti jéem koo dégg ci ne ñëwul fi dara lu may taxawal diine aw salakum fii nii na eh, yàlla lim ñu tànnal du dara lu muy diine diine du dara lu muy xam ak yëf ni mu ko tëralee wane yi ko nag mooy tariqa tijaan bi lay buñ gisee tariqa tijaan lu mooy mm-hmm. dégg diine jëfandikoo ko ci xam-xam ak teggin ak fiix ak gisi yàlla bañ a gis suñu bopp gis yàlla bañ a gis lu mu dul yàlla parce que lépp loo fi gis tey mhm. yàlla fa feeñ mu feeñ fu yàlla feeñul du dara du dara alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf jëf ku yàlla mm. feeñul du dara kon nag <laughs> ñu ngi jàpp ci yàlla <laughs> <laughs> jéem a gis yàlla gis li ñuy wax ak li ñuy def dundee yàlla kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah macha allah الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله